toog sa réew tekki fi ñafe fi tekki fi mën na ne waaye nag <laughs> tekki yombul de léeg-léeg nga mel ni day jël deux ans trois ans ak yooyu ndekete yaa ngi ci yoon ba tey yaa ngi ci yoon ba tey te léeg-léeg tamit du ñuy concentré wu trop ci li ñuy def y a beaucoup beaucoup beaucoup de facteurs ñun lu ñu bëgg a wax jeunes yi rek ne ñu bàyyi di euh, jeter tort bi gauche droite ñu andiwaat projecteur bi ci ñoom et qu'ils comptent sur leur propre force qu'ils comptent sur leurs propres forces. Beaucoup d'entre nous sont issus de, de, de, de, ont des histoires très très compliquées. Hein, vous aurez l'exemple des histoires très très compliquées qui sont arrivées à être des champions du monde euh, en, en, ou des champions d'Afrique dans leur discipline et, et dans, leur, dans leur domaine. Donc loolu la ñuy wax ne rek dañuy ubbi yaakaar ndax léeg-léeg gisul wala loo musul gis da ngay naan amul fekk am na nit ñee waxagul. donc conférence bi wax ak ñoom la pour ñu toog wax ak ñoom pour ñu jéem wax ak nag képp ku ci am pàcc mu am dégg-dégg am def li ko wax lii ñun dañuy wax ni rek de on veut faire notre part suñu wàll la ñuy def dañoo bëgg a wàccoog loolu def suñu wàll en toute conscience léegi nag li ci des yàlla dina ko yeggali